ki nga tànn ñoom ñëpp ñu accepté ko nee na loolu lañ ko wax ñu ñëw tànneef jot ñu tànn nee na tànneef jot ñu tànn bi ma xool nee bi mu xaymaa xool ku nekk am na cër nee ku nekk am na cër ku nekk am na mérite ku boo boolee critères yi nee na boo boolee critères yi ci tane ki ci tane nee na mooy Amadou Ba nee na la premier ministre nee na boobu am na lu mu ko boobu mu am. am na lu mu ko ci am na lu mu ko yokkal. ba tax na. nee na ba tax na. ba ko waxee nee na ba mu ko waxee leader yi. ñetti téeméeri leader. muy dina ñetti téeméeri leader. ñu si na ñoom ñëpp ñu àndandoo ni duñ ci teg baat. nee na message bi ñun ñëpp seetaan nañ ko tonton Moustapha Niass moo ko liir. ndax nee na da doon a tukki am jafe-jafe. ñëpp d'accord ne kon pour la coalition Benno Bokk. nee na ñëpp d'accord ni pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. benn candidat la ñu am. benn candidat la ñu am. kon keneen ku fi tudd candidature. nee na kon keneen ku fi taxaw di tudd candidature. bokkoon ci parti te bokkoon ci parti bi. wala ci coalition bi. wala nga bokkoon ci coalition bi. xamal ni génne nga ci sa bopp. nee na xamal ni génne nga ci sa bopp te loolu day wane ni sa boppa la tax a jóg. mënoo nekk ci mbir. nee na ndax mënoo nekk ci mbir. nekk ci kuréel. nekk ci kuréel. nangu ne candidat nga. nangu ne candidat nga. nangu ne ku ñu tànn di nga ko di nga ko nangu. nee na nga nangu ne ku ñu tànn da nga ko nangu topp ci moom. ñu bañ la tànn nga ne kon. nee na ñu bañ laa tànn nga ne bokkatuma kon loolu day wane ni yow sa bopp la ñor. loolu nag. nee na loolu nag. militant yi lay wax nee na militant yi ak militant yi yéen lay waxal. kenn ñëw fii di leen wax. nee na bu fi kenn ñëw di leen wax. am na beneen stratégie. am na beneen stratégie. budul bi mu wax. budul bi mu wax moom. nee na tànn benn candidat. muy candidat Benno. muy monsieur Amadou Ba. nee na ñu gunge ko jàppale ko nañ ko jàppale woon moom. pour ñu mën a gagné. nee na suñu gañee du monsieur Amadou Ba moo gagné de. nee na président Macky moo gagné. ndax moom tànneefam la. leaderu Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñoo gagné. nee na bu boobaa leaderu benn Bokk Yaakaar yëpp ñoo gagné. ndax nee na ñoom ñëpp ñoo nangu tànneef boobu. nee na ñoom ñëpp ñoo ànd ci loolu. kon nag li mu leen di ñaan. nee na ngeen fàtte jafe-jafe yi. li nga xam ne defoon nañ leen ko muy lu metti. nee na ñun ñëpp ñu àndandoo fàtte yi nga xam ni defoon na nañ ko te mu metti. te ñu nee na te ñu xool Sénégal. te xam ne bu ñu sàgganee. nee na te xam ne bu ñu sàgganee. dinañ di dinañ ko rëccu ndax réew mi dina dugg ci yeneeni loxo. nee na loolu yàlla na ci yàlla musal yàlla na ci dégg di suñu wàll. nee na taxawaat leen ci section yi. xoolaat leen dem leen seeti nit ñi. nee na leen ngeen dem jëli nit ñi seeti waat nit ñi. tàmbali leen ko ci parrainage. nee na tàmbali leen ko ci parenage bi. nee na moom nag dafa am mbégte. nee na nag te ci sant yàlla bu baax ci mbégte bi. nee na ndax politique du lu yomb. nee na dugg ci nag ba génn ci. yàlla may la ci ndam nee na jar na sant yàlla nee na loolu war na tax kenn ku nekk nee na war na tax kenn ku nekk ci ñun nga am fierté nga am fierté nee na xam ne bu la neexee daagu ci Sénégal ak bitim réew nee na taxam ni ka ngeen àndaloon di wut réew mi la mu dige woon def na ko ba def lu nee na loolu nee moo tax bu kenn am métit ci boppam nee na su ne moom nekkatul président dematul naa na ndax nee na lii di mbégte li ak tiitër bi nee bu dee dem jël caabi ji nee na jël ko waa këram nee na kon loolu nee na moom la ñu war a taxaw nee na def ko. def ko ngir Sénégal. nee na ngeen def ko nag ngir Sénégal. def ko ngir nee na ñu def ko ngir jàmmi Sénégal ak stabilité Sénégal. nee na am na nit yoo xam ni. bu doon seen sagol yegg na mbaa la ñu bëggoon yàlla defal na leen ko. koy compter ci am nee kon Sénégal ñu ngi koy compter ci réew yi tàkk ak réew yi am crise. jërëjëf président. ah nee na Nations Unies di fay yónnee. nee na ñu naan nan na ñuy dimbali Sénégal ak nu ñu fi delloo si jàmm. nee na démb wax na ko France 24. nee na wax na leen ni nit yi nga xam ne ñoo jóg bëgg a yàq Sénégal. nee na te moom mu xam leen nag bu baax. mu am ñu nekk ci mi. nee na mu am ñu nekk ci biir réew mi. ak ñu leen di jàppale ak ñu di jàppale ci suuf. nee na leen ils ont lamentablement échoué. nee na leen ils ont lamentablement échoué. nee na te duñu leen mës a seetaan ñu yàq Sénégal. nee na waxoon na leen ni fii ba keroog muy tekki mu tànkam di fi jóge. nee lépp lu fi nit yëkkati bëgg koo yàq. nee na dinañ ko neutraliser dina ko diggaale ñoom ba mu fay seen buy nee na kon nag loolu moo jara sàmm tey ndax jàmm ji ci Sénégal stabilité bi ci Sénégal nee na développement bi ñu tàmbali ñu mën koo mottali ci jàmm nee na kuy taal réew kuy taal ay cocktail molotov nee na kuy saagawaate ak di xastawaate noo koy dénke réew nee na ku ko def yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi tooñ waa réew ma président nee na merci beaucoup nee na mi ngi ñaan ñu dégloo nee na baagam dafa sant Ngaay Gay nee na Ngaay la sant waaw déglu leen s'il vous plaît nee na nag déglu bu ngeen dégloo di ngeen yëg baatam nee na mi ngi am mbégte loolu tey ci daje ak yéen fii ci New York sant nag cant goo xam ne am na na mi ngi leen di cant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. cant gi nag li ko lal. nee gi nag liko ko lal. mooy seen cofeel ci moom. nee na mooy seen cofeel ci moom président Macky Sall. bëgg nee na mooy bëgg-bëgg bi ngeen wane ci moom président Macky Sall. nee na te loolu. moo jiitu. nee loolu moo jiitu ak ñëwam ci nekk président de la république. nee na su dee xool saal bi. nee na gis na fi ay jigéen yoo xam ni. ak góor ñoo xam ni. ak ndaw ñoo xam ni. ak mag ñoo xam ni. nee na ba ñuy tàmbali. ci 2008. wallaahi nee na ñeneen ñi ci lu ko jiitu. nee ñoom ñoo taxawoon. nee na ba tey jii. teggiwuñu seen tànk nee na ndaxam li ci gën a bari nee na ñi gën a bari ci ñooñu nee na amuñu benn avantage ci nguur gi nee na mais terewul nee na mësuñoo teggi tànk mësuñoo yoxal nee na kon ñoon ñooñu ñoom la bëgg a jëkk a gërëm nee na di leen xamal ni bu jot amoon